Hi. Hello. How are you? Thank you. képp ko bëgg a dégg anglais comme ni ko président Bassirou Diomaye fay ji waxee demal seeti fluency in English mooy ñi nga xamante ni dañu lay jàngal anglais moo xam nga ñëw wala sax ñu defal la formation en ligne ñoom nag am nañu représentant fépp ba ci sax Sénégal wala Rwanda wala fépp ci àdduna bi ñoom ay professionnel lañu yoo xam ne dañu cee ay lool ba noppi itam yàgg ci kon nag yéen ñi bëgg a jokkook ñoom woote leen gaaw ci numéro yooyu ñu affiché loo xamante ni dañu ko nemmeeku sa diggante ak Cheikh Amar lan moo ci xew. dara xew ci damaa giñ sàcc accusation de de vol. Hmm. ah waay dara xew ci de dañoo yow wax nañ leen ko information. Ah, boobu yëg nga ko ñu ni man damaa dem di cambrioler kër Cheikh Amar. Hmm. moom mu ànd soxnaam soosu ba pare gëm ko. di wax ne man damaa cambrioler kër mais nag duma ci musa ñaaw ndax man Cheikh Amar sama frère la. sama mag la na ma meloon démb laay mel ci moom bu ko laal gis ma du ma leen amul lenn loo xam ne luy ñaaw la sama digganteen moom tey laa ko gën a bëgg xam naa ne àndutoot sagoom waaw si si bu àndutoot sagoom fu nuy waxee ne délégué sàcc na nangam day taxaw ne déedéet te moom dafa taxaw nangu ne dëgg la dama ni ah. fu ñuy waxee ne délégué def na nangam moom day taxaw ne déedéet xam naa si abar hmm. ñàkk àndut sagoom nag moo waral yenn yi di am ndax daf koo dëggal dëggal na ko waaw. d'accord da ko dëggal. Hmm. waaw ci lan la ko teg dafa am manqué këram wala. waaye yow këram gën këram. ah cambriolage waaye yow waaye yéen xam nga giñ xam nga giñ nañ ma fi ne man maa jël ay audio partagé ko. Mhm. ah du loolu giñ nañ ma ko fi. Mhm. maa jël ay audio ma ko fi non ah, waa ma ngi noonu waa léegi audio yooyu ci kanam tuuti dina leer moom loolu moom xoolal aji barki sëñ Bamba dinaa leen waar ngeen ñëw loolu moom yëpp dina leer. da nga mais je ci Cheikh sama sëriñ la sama mag la sama kilifa la sama tey laa ko gën a bëgg tey laa ko gën a fonk waaye nag il faut très attention mm. waaw il faut très attention mm-hmm. parce que jigéen dafa doy waar yàlla ñu yàlla musal ci jigéen ju bon mm-hmm. mais Cheikh Amar nit ku baax la kenn gënu ko te tey laa gën a mën a défendre mais nag wax bi métti na ma torop accusation de vol pour délégué Amar mm-hmm. bañ woo si internet yi ne leen délégué daa cambriolé kër Cheikh Amar yéen nag ci seenu mbaax ak ci seen xam nga ngeen ma xam ngeen bañ na loolu du dëgg man leen nañ ma tuddee Baye Jinne Boy Jinne numéro 2. kàmbur yoo leen de gang moo koy def. Baye Jinne booy Jinne léegi tuddee leen ma Baye Jinne numéro 2. d'accord li ma jàpp ci kàmbur yoo leen mooy gan moo koy def. gan mooy lan mafia boo xam ne ñëpp ay bandi lañ. te ba pare li ma ci gën a metti jouru màggal lañ wax. Hmm. waa aji jouru màggal yàlla àtti na waa jàmm ñi. Maad Waly Seck ñoo yendu. yàgg a àndoon. ma ngi noonu Maad Waly Seck yendu. sa waay ngi nii. ñoo ànd màggali seen aali jour màggal ñi ngi déggante téléphone ba nga war a ñëw sama kër waa ba ma àndoon waali ba waali yeeweeku dem Ndakaaru ma tourné waat samay on ànd ak xaadim peexan ñoom petit convoi bi gis nga ko mhm. convoi boobu yëpp oto yëpp samay oto la convoi bi topp waali yëpp samay oto la mhm. oto waali dong laa ci moom 5 mhm. millions laa génn ci màggal gi budget su may jëfal sëñ Tuubaa du ma ko wax waaye dama dama koy wax ndax ñu ma wax nee nañ jouru màggal laa kàmbur yolla kër Cheikh Amar kër goo xam ne dara amu fa kër gu vide dara amu fa dara kër gi ci Tuubaa dara amu fa jouru màggal bi waa li ñibbee ma dellu sama kër bàyyi di yëngal mbana yi takk sama ndigg di togg ceebu jën ak ceebu yàpp waa kooku na ba na lay kàmbur yolla xa 5 millions laa génne bis ci màggal gi Cheikh Amar dërëmam joxuma ko de jox dara billaahi wallaahi wa taala barke alquran Cheikh Amar musuma may téeméeru junni baa mu yëkkati cent mille francs bu mat may ma ko bu topp di am maa war a topp man du ma hypocrite du ma naar fekk kenn mu mos jënd mos jëndal oto sama àdduna muy kun ñaar ñaar kun naan Mohamed njëkk a may oto Mohamed en 2016 Waly Seck moo ci topp ana vélo bi ma jënd kon bu ñu nekk fii di ma jaxaseet sénégalais yi ngir polémique ngir di yee ay affaire man je suis man kenn ku la abali bët moo lay xabal moo lay xoolal fi ngay aw mm-hmm. te man kenn lu may bët samay bët maa ko moomal sama bopp dëgg nag ci la ma ñëpp di rey mm-hmm. jouru màggal lañ wax ne damaa cambriolé kër Cheikh Amar yéen ñii ñu woo leen ne leen délégué daa cambriolé kër Cheikh Amar mais lu tax Cheikh Amar nangu ko d'accord ne loolu loolu moo tax ma ni leen ko waaw moo tax ma la xam nga gëlëm dafay am waaye bu ximbali ko rek dina leer. Hmm. lépp loo gis gëlëm day am. mais mën na dëggal lu mu xamul. looloo jaaxal ñëpp ah sëñ bi yow tamit kii dafa xamul jigéen xanaa. Hmm. ah xam ne lu tax yow Cheikh Amar sa diggante ak moom muy sa frère ñu wax ko rek mu tamit du délégué dafa a def. waaw mais yow da ngaa xam lan mooy jigéen. xam naa ko ndax waaw ngay jeex na ay pexe yi jigéen hmm. lu ne la. wax ji yegg na dafa ko moom aji fii fii ki fan laa la wax du yee semaine bii bu génnee tamit benn semaine bi ci topp di ngeen ñëwaat fii ci man <laughs> ci beneen façon ñëwin boo xam ne dëgg da ngay naan ma délégué nag yow yaa am dëgg sama question mën na ñëw waaw d'accord li ma bëgg a xam mooy pour euh, xam sa diggante ak seen am xam ni mu nekk sa frère tey ñu ñëw ne la sa rakk sàcc na nga ne waaw ndax ko mës a def këram wala dafa mës a def mel noonu ba tax ma adiya da nga ko mës a def nga da nga mës a cambriolé euh, Cheikh Amar wala da nga mës a jël alalam te yóbbu ko ba tax ñu nangu ñu wax ko mu nangu c'est une vraie c'est une question bu ma am solo. Ah. c'est une question euh, pertinente. Ah. man su dee jub gëm naa ne réew mi Ousmane Sonko Diomaye sax leeru ma waaye gënuñu maa jub hmm. waaw. aji bu ma doon sàcc heure bii milliardaire laay doon. aji dama daan liggéey ci ceeb ay conteneur ceeb ay bateau ceeb di wàcc man ma yor responsable bi <laughs> nekkat ay partenaire ay indien sama oto un deux milliards cinq cent millions fanaan na ci une semaine. beneen bi un milliard et quelque fanaan na sama oto deux semaines xaalis bi war a dem Dubaay xam nga Dubaay boo fay boo yóbbee Inde du dem Inde direct day dem Dubaay jàll. waaw mais kooku bu doon tax te xaalis boobu amul li liñ naan trace amu ci maanaam bind ay nangam damaa jaay ceeb ñi ma jaay maa ngi koy nuyu paake bi di jaay katu ceeb bu mag fii ci réew mi moom ah, Bokar Samba Dieye moo ko yar Bokar Samba la tudd ah. moom laa daan jox ay 18 conteneurs ceeb. xam nga amoon nañ ci problème ba mm-hmm. benn waaye bu na Aline Penda Diouf ne surtout sëñ Thierno Diouf laa mm-hmm. bàyyi la ñëw triant ma sàcc ma ñu yóbbu ma ci yoon waaye léegi sàcc boobu bu doon sàcc looloo ëpp petit mii laa àndal ak sama gars wut ay gardien technique fa jox leen caabi foire laa luye mm-hmm. ba Badara Gadiaga mii nii ñëw na ci sama entreprise bëgg ci sama ceeb bi ak ay kilifa yoo xam ne ñëw nañ sama entreprise bëgg ci sama ceeb bi ma jàng seen i mbir teeja duñ ma bàyyi waa léegi aji sàcc kay yaakaar naa ne du du du sàcc jamono ba tey kër gu dara nekkut boo xam ne amul fifteen amul dara dem naan dafay kàmbur yolee sëñ bi wax ji yegg dafa ko moom man ku seet wicci laa sama waajur bi jurut sàcc sama waajur jurut tuxkatu dorog dorog dañ koy tux mm-hmm. ah waaw sama waajur jurut tuxkatu fóonkatu dorog mm-hmm. li damaa li si Sëriñ Saliou def ci ñu li ñu mel mm-hmm. ñu ay nit taalibe sëñ Tuubaa yu dëggal nag te loolu kenn mënu ko dindi ku bëgg a am nit kuy jaay dorogat wala nit kuy cambriolé nga dem seeti say mbokk. da nga leen topp ci yoon. du ma topp kenn ci yoon man aji fii nga toog ba taay man la man du ma porte plainte yàlla sa der non du ma def boppam. Mm. bu doon loolu sëñ tubaab fayantoo. <laughs> d'accord te dina iham jëm yaxal war a yaa hadiya radaa yërëmal ñëpp. Mm-hmm. am na solo <laughs> te ñun ay murit lañ. dañoo war a roy ci jëmm jooju. Hmm? murit man boog murit laa boo xam ne. Mm-hmm. du ma fayantoo waaye nag ku ma woo ko ma xori la nag. ku am fitu am fayda di ma dàggasante ci internet bi na nga xaar toog te déglu sa réponse sa xam ne naa la tontu waaye duma ma porte plainte A du ma porte plainte B. am d'accord ci murit googu laay ñëw euh, gis nañu récemment euh, beneen actualité boo xamante ni euh, ñëpp ci waxtaan muy kàddu yi nga xamante ni Cheikh Omar Diagne yëkkati na ko te ku ne xam na digganteem ak président Bassirou Diomaye fay mi ngi liggéeyee ci pale ba ginnaaw kàddu yooyu nga xamante ni nag daf ko yëkkati woon mu jur polémique te mën nañoo fàttali mbokk internet yi vidéo yooyu am na 5 ci ginnaaw peut-être dañ ko daggaat muy soog a génnaat bi nga xamante ni am na cinq ans voilà am na cinq ci ginnaaw bu yooyu la vidéo nga xamante ni moo jur polémique ala lan la wax ci màggal gi moom waaw moom li mu wax moom mooy euh, avant màggal gi li mu wax ci juma Touba ak juma bi nga loolu moo am cinq ans waaw boobu am na cinq ans non màggal gi weesu waxul lenn waaw wax na ci lenn balaa ñu cee ñëw dinañ ñëw ci loolu ba pare li nga xam ne wax ko vidéo boobu moom bu ma ko yëgoon jamonoy cinq ans dama koy question mën na daan d'accord li nga xamante ne wax na ko moom mooy euh, jumaa Touba ak jumaa bi nekk fii ci Dakar maanaam dafa am ay signe ah lu toll ne jumaa Touba gis nga yéen su dee ay murit ngeen yoo xam ne waaw gis nga vidéo bu ma ko xamoon jamonoy cinq ans ah, kon waxatuñ ko parce que lu toll ne jumaa Touba ma xamal la ñaar na état wax lan la def jumaa Touba murit yi lu am ñoo ko defal seen bopp du benn mbàkke mbàkke sax boo ko def nañ waxtaan dëgg taalibe yi ñoo def lu nekk Touba taalibe yi ñoo ko fa def du mbàkke mbàkke de nañ mu xam loolu nañ xam ne mbàkk mbàkk yi la nekk Touba defuñu ko fa taalibe yi sëñ Touba yi la nekk Touba ñoo ko fa def da gis benn mbàkk mbàkk bu dàq ay nag jëmale ko ci sëñ Touba màggal bi Baay Faal yi gis ñuy dàq xar tabaski jëmale ko ci sëñ Touba taalibe yi rek ngay gis ñuy jëf di def Touba kon ñun jumaay Touba sama baay liggéey na fa man liggéey naa fa ndax sama alal dem na fa kon duñ nangu benn genre hypocrite boo xam ne tekki woon dara ñëw naan daam ay signe franc-maçon lan mooy signe franc-maçon xanaa moom ma ca ne moo man xamewuma si ñu baraxaso lan la ne ma lii la dërëm mu état musul dem ci suñ jumaa jii nañ ko xam Masaalikul Jinaan ji Cheikh Amara ci def sept milliards et quelque ñoom it dañ doon doon ko dul fàttali rek waaye kii mbàkki yu fay moom it war na xaw a gore tuuti buy waxati nay fàttali ko jëf ji Cheikh Amar jëf ji Masaalik ji dañ koy fàttali Cheikh Amar deewul même bu deewoon sax dañ ko war di fàttali 7 milliards et quelque def na ko ci Masalik gii dërëmu état demu ci lépp murid yi ñoo ko jaayante. Touba ca kanam ñaata milliards la ñuy gañe ci 1000 francs yi ñun duñ sëñ Touba du morom nan ko waxta dee gis ngeen su ngeen amee seen ay ay ay lobby wala seen i ay ay nangam ngeen jëmale ko seen kër ndey seen kër baay pas ci Seexul Xadiim gis nga nag yéen murid yi daa am benn fulla joo xam ne dafa commencé denc yéen. Hmm. mooy lan ku attaqué sëñ Touba da ngeen war a génn kulluhum ñëpp a war a génn sëñ bi porteur dafa Ablaye Mbaye Pekh daa war a génn wax. Mhm. pourquoi si. géwélum Seexul Xadim ah. ñu attaqué sëñ Touba génnal nga wax sëñ bi. dëgg ah, na dañ dañ dañ waxtaan dëgg te yàlla rek. Mhm. te lii heureusement bi nga nee 5 la parce que bu fekkoon ne. ah 5 ans ci nii nii la ko wax nii. Mhm. kon jomaay da koy dàq. ndax jomaay li ko sëñ Muntaxa wax rek ku mu ko waxoon sa mbégte day feeñ. li ma neex ci yow mooy diine ji. Ah. te diine la ñëpp Sonko kazaalika ñun bëgg gin bëgg Sonko mooy lan ak njubam ak mbaaxam ba tax ñu jaayante ba mu nekk fi kon gëwma ne ñoom dinañ jël nit koo xam ne day yàq ci day yàqal da leen di yàqal yàqal seen diggante jeunesse bi rawatina yoonu murit murit ak doole gi mu am ci àdduna bi ngay ñëw di accuser lu mel noonu mas ah, fii grande mosquée ñun suñu yoon nekkul ci grande mosquée ndax grande mosquée waale suñu suñu yoon nekkul ci grande mosquée ndax grande mosquée grande mosquée waale suñu bos bee ca Masalik jumaa yàlla suñu borom déggoo ma de dama ni sama yoon nekkul ci grande mosquée ah. grande mosquée grande mosquée waale wuñu suñu Masalik waxuma la sax Masalikul Jinaan de grande mosquée wul jumaay Daaru Salaam néegu yàlla la rek waaw déggoo ma de ah, waaw aji ah, sama yoon dèjà nekkul man mosuma faa jullee waaw sama yoon nekku ca di ah. waxuma la man de dégguma la néegu yàlla de grande mosquée laa wax grande mosquée mooy lan jumaa ju kon moo tuddee grande mosquée dèjà grand jumaa koy tuddee grande mosquée mooy jumaa ju mag ji rek déedéet déedéet déedéet bu ni ma grande mosquée grande mosquée googu grande waale wut suñu grande mosquée bii ci Masalik kon ba nga koy tudd di ci jël ay toftal naan ay na bañ na ko ba ni naan kan moo defar grande mosquée kan moo ko defar. kan moo ko defar laaj naa la ko. Euh, Mohamed Ciss. waaw moo ko defar. eggale maanaam xaalisub eggale bi ci ci ci loxoom la. grande mosquée kan moo ko eggale. Mm-hmm. kii euh, Masalik ku ko yeggale. Mm-hmm. murid yi ñoo ko defal seen bopp yeggalee ko seen bopp inauguré ko seen bopp. ginnaaw nag dañuy gërëm nag présidence Abdoulaye Wade. Mm-hmm. ndax moo ñëw jëkkati terrain bi jox Seexul Xadiim ab taalibe la ba tey taalibe yee rek la. <laughs> ah kon bu ñu jël suñu yoon wi suñu taalibe murid yi liggéey li ñu liggéey ba am li ñu am seen mbaay su Seexul Xadiim ko ci yoon wi. ay hypocrite mbaam àll ay mbaam xoox jóge fële ñëw ne dañuy yàq dañuy saltel suñu yoon yi ñu ngi jum nag mm-hmm. parce que temps yi lobby yi dafa bëri lobby yi surtout borom tuba yu gàtt yi mm-hmm. ñun tudd dama leen di seetaan lu bëri ñuy critiquer te amuñu xam-xam dama ne damay fàtte seen tuuri rek mm-hmm. ay ma nan ay oustaz lañ xawma ay lan lañ comprendre murid bi la gën a naw moo la gën a jàng lii ñaata yoon la fi murid yi gagné concours arabe alxuraan at yëpp ñoo koy gañee takat boobu université bi pareegut <laughs> kon sëñ Tuubaa du morom mm. nanu nanu bàyyi caaxaan yi Omar nan la waa tudd Cheikh Omar Diagne bu dee da nekk di wax waxi dof ci yoonu murit na la Sonko wàcc nu mu gën a gaawee balaa yàqal boppam mm. waaw parce que sëñ Tuubaa foowut fooluwut Sonko xam na kuy sëñ Tuubaa Sonko xam na taalibey murit yi ba doole la ñu am fii ci réew mi Sénégal bu dee cent pour cent quatre-vingt-dix pour cent yëpp ay murit lañ kon murit rawatina sax yow waxuma la sax murit mais tijaan yi sax waroo leen a kekkantoo parce que seen baay ak seen i maam dafay liggéey ci réew mi loo xam ne tey gàcce ngaalaama la waaye ñoom bi seen i baay ak seen i maam di liggéey ñu ñoom seen i baay ak seen i maam anañu mu ne moom tijaan la de ndax ñaseen la bu ko boole foofu de ah, ñaseen bu def non non non bu leen def loolu ba yéen xanaa xamu leen Baye Niass Baye nangul gum nangul la déggoo ma de nangul gum nangul sëñ Touba